li jëkk mooy dañuy ànd ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci xarala gi ñu déglu ki nga xamante ni mooy Aliou saw nee na daf ñuy wax ana kan mooy président Macky Sall ak naka lay liggéeyee ñu déglu Aliou Sow dellusiwaat je vous en prie

pare na ñu enchaîner nekk fa di dossier par dossier du dagg kenn ba trois heures cinquante du matin la ñu pare nga dugg ci palais ba neuf heures trente ba trois heures cinquante du matin man maa ngi amoon ci ëllëg sa thèse doctorat boo doon présider man na may naka lay def ak kon gis naa moom ñu ngi pare ñu ñu yolleeku gis naa muy taxaw di def ay audience am di wax ak ñoom benn par benn boobu nit boo gisee honnêtement ngeen di ànd c'est conseil des ministres décentralisé yi am na benn bés dañu dem Sédhiou dañ nekk di liggéey di liggéey ba dernière audience bi nekk minuit ñoo ngi fa woon ñu ngi xool lu ñu yollee ko pour dem tëddi minuit nag xanaa te war am conseil bi ëllëg sa man man bokk naa ci amuloon chance général bi oo ma ne président mën ngeen ñëw ñi ñëw man premier ministre yenn ñaari ministre yu toog dañu invité reer bi reer moom du invitation convocation ba ñuy pare deux heures du matin benn instant Abdoulaye ne waaw ku ngeen <laughs> ah, tëddi moom la war a tëdd après yàlla xam loolu xam nga boo gisee nit di ko def ay eh, am mbégte ak kontaante Aliou Sow euh, li nga xamante ni bi moom la wax ni daf ñoo wax ni président di liggéey parce que bi nga xamante ni bi yóbbu nañ leen foofa ca Sédhiou defe naa ni bu fekkee ne dañ fay def conseil des ministre moom moo yore ministre bi nga xamante ni moo yor lépp lu jëm ci wàllu culture daf ñuy wan nañu président coono gi muy daj mais moom ban coono la daj pour culture bi jëm ca kanam mi ngi ñuy wax li président liggéey mais moom fàtte na moom lan la liggéey moom lii nag mooy problème bi nga xamante ni bi réew mi am na ko maanaam dañ lay teg ci place ne la yow place bii kat fii nga ne dañ la teg pour nga doxal mbir mi di wàllu culture boo ñëwee nga au lieu que nga wax ñu li nga xamante ni bi moom nga fa def wala lan rapport nga yëkkati woon jox ko président de la république ak lan la ca def waaye mi ngi wax ak ñun ci wàllu temps maanaam président temps bi muy def ak ñoom mais lan la ñuy def ci jamono jooju loolu mooy intéressé sénégal yi parce que loolu après mooy meññ ci biir réew mi boo nee ñun ak président nekk nañ fa lam fa wax sax jub waxut sax ci waxu liggéey wax na daal ab reer ba mu jigi Abdoulaye Daouda Diallo daal ne ko président reer bi neex na mais ba tey waxuñu lan mooy li nga xamante ni bi moom lañ fa liggéey et pourtant taxaw na pour moom mi ngi tagg président de la président du nelaw mi ngi dalal ay kii bi ngi dalal ay kii bi ngi dalal ay kii donc ñi mu doon dalal lan lañ doon indi moom mi nga xamante ni bii ma nga fa woon lan la yóbbu woon te li mu yóbbu woon dossier lan ak lan la ak loolu fan la ci toll loolu la ñu waroon a xamal pour mu nekk loo xamante ni bii lu am solo la mais waxuñu dara lu dul président kenn xamut ban heure lay tëdd waaye dina recevoir diw dina recevoir diw dana toog danañ reer. mais waxuñu lenn loo xamante ni bi moom ci domaine sax bi mu nag muy culture ne président kat wax dëgg fa yàlla bi mu fi nekkee nag bu koy tagg ci loolu la ko war a tagg que ni culture bi fekkoon naa ko mu nekk fii mais fi ma ko fekkoon mu nekk diira président jox ma ko ba nëga ni dégagel na ma ni waxoon na ma naa def li waxoon na ma naa def lii bi ma ñëwee jox naa ko dossier sàngam ak dossier sàngam fu ñu ci toll ak yan lii mooy li nga xamante ni bi moo intéressé om culture yi nga xamante ni bi tey ñi ngi toogoon di bàyyi xel Aliou saw waaye maa nga ñuy wax moom le président di daj xam nga li président di def boo xoolee ci réew mi rek ku ci ne am na nu mu apprécier li nga xamante ni bi mooy li président liggéey ci réew mi ku ci ne am nga ci sa gis-gis ak sa xalaat soxlawul ñu koy film filmer di wane ni muy liggéeyee mais lu sotti nit ñi xam ni def na fi lii def na fi lii def na fi lii loolu mooy li nga xamante ni mooy li am solo loolu nag mooy boo falee dit buñ la tegee benn place nga jàpp ni place bi li la ciy dëgëral mooy neexal ki nga xamante ni kii moo la fa teg nii rek nga mën a doxee mais boo jàppee ni place bi ñu la teg mérité nga ko jàpp naa ni am na loo xamante ni bii moom euh, waroon naa yemb ci ay liñ ko dénk te demeewu ni lan moo ko bloqué lu yooyu lañu war a wax ak bi nga xam ni toog naa président lii laa ko wax ci li nga xam ni moom lañ ma dénk ci domaine sàngam ak domaine sàngam waaye daal la mu reeree wax dëgg fa yàlla euh, intéressé wut Sénégalais yi ak reer bu neex bu ngeen lekk ak yooyu yëpp ñorut Sénégalais yi donc yu mel nii nag mooy tax nit ki di jóge ci cadre ku ñu dénk yegg ci niveau buur maanaam loolu mooy dex euh, nga fal nit ñu ne kii mooy président réew mi mais ñi ko wër au lieu ñu liggéey mais dañuy nekk far mujj doon ñu koy tagg ba moom mu yëg ni man mii kat léegi mbaadu dama romb euh, président doon buur loolu mooy li nga xam ni mooy problème bi bu ñu leen falee seenam njàng tax ñu fal leen donc liggéey leen moo gën ngeen bëgg a jël taggaate def ko métier loolu moom jaru ko